ñuy dalal tey euh, sëñ bi Mamadou Diop Thioune bokk ci Haut Conseil des collectivités territoriales euh, yor tamit cadre Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale ñu ngi lay nuyu dalal. maa ñu waxtaanee li nga xam ne moom la ñu nemmeeku gannaaw nag benn enquête euh, li nga xam ne mooy direction de la protection et de la surveillance des pêches nee nañu nag boo moyul dafa am benn ouverture ca jama loolu moo entraîné euh, jën yi nga xam ne dañ koo gis mu daal di nag dee ci ci ci yenn plage yi ñu nemmeeku euh, yu ci mel ni njebeen gàncol euh, li ni mel ndax benn commentaire bi nga ciy def waaw li ñu ci xamal mooy waxtu mu ñu lare dafa am ay témbo moo waral tombe waral ay gaaf mhm. dañ koo gis ca jebel gànjël gis ko it lu ni mel fii ci yoonu mbuur mhm. mu nekk zone yoo xam ne pétrole da leen xaw sëx ka ñu war caa wax ndox mu bon nag yàq na ci naaxu géej lu baree bari lu ñu xam mhm. ndox mu bon nag yàgg na ci mool mu ko xam waaye bu ko mool nattee teewul bu xëyee dina fekk jën nekkaat ca fa mu koy fekk léegi mhm. bi yoon dafa tartar goo xamee ne foog ñu bàyyi ñi nga xamee ne ñoo ci nekk di ko liggéey waaye gërëm nañu leen ci taxawaay bi nga xam jog nañ gi def ko dem taxaw jël matukaay yi dem xool ñi nga xëy ñoom méeko xam-xam ci yor di ko gëstu di ko seet di ko càmbat mhm. la ñu ciy indil neen waaye ñun dañ leen def ñu ne ñaareel bateau yi ñu yor tanker essence yi carburant yi gasoil ñooy sotti seen citerne di ko raxas ñu génne ci boor waaye du loolee am na leen lu ca rax méngoo nag kuy gëstu pétrole am na bagage yoo xam waale mu nekk yoo ci sinébar yoo xam noonu lay dundee di yàq géej hmm. yàqul ne ñun rëcc ci biir ñu gis ko mu tor parce que daan na mel nii waaye bii dafa ëpp de tar hmm. ëpp de tar nag mooy xam ni gis nañ mu tàmbali di naax di dem mooy ñi xalaat te yàlla màcc leen xam-xam ñu xam ne seen kàddu da ci am fi ñu ko wéer mhm. kàddu boobu la ñuy xaar ñu indil ñu ko beneen bi ci des ni mooy mhm. ndaa ci jamono bi ñu toll mhm. ku géej fekk géej géej indi pétrole ak ñu di ko fa seet dëkkandoo ga dina metti lool ku jege dina metti lool moo tax ñu ne lii ëmb pes li ëmb environnement nañu articuler seen i pexe ci seen i directive ak yi nga mooy seen tettal ak seen i dogal pour que ñu mën a muccal géej gi muccal askanu géej muccal li ci biir géej gi mën koo jëriñoo. Mhm. jën nag daañu koy yeesal waaye kenn du ko mën a wax ne du jeex. nag day mhm. yooyu bu ñu amee dina ci baax lool. d' accord lan tey euh, ci nga sukkandikoo ba wax ne euh, justement yow euh, jàpp nga ne teesu exploitation ressource yooyu le moo waral action bi am ni waaw wax na sànq de la. nawet daaw yëpp la fekk xam nga xam naa kër yi seen na. Mhm. <laughs> waaw maanaam fekke naa xam naa bokk naa ci yi nga daan wax mel nii di ko def. fekke naa xam naa seetlu naa ak leneen bokk naa ci yoo xam ne it daan naa di wax loo xam ne bu ma ci laaw dama koy xool xam ko. Mm-hmm. mais dama ne la waxtu mu témbool dama xel dafa ñaaw ca loola. Mm-hmm. te li may sabal di ñaaw dafa nekk loo xam ne dama ci yàgg di wax bokk ñi nga koy wax bokk ñi koy tëral di ci dox di ci wax ci Sénégal. Mm-hmm. daanaka nag napp mooy napp gi ma nekk damaa nekkaale ci mbirum àllam gi surtout yi liggéey waay la ñoom. donc xam naa lu rax ak lu raxul. Mhm. mbir mi dama ne la waxuma ne euh, du loola waaye dama ne la mu rax te xam ko bàyyi ñi ko mën a càmbat génne ko mbirum géej nag offshore ci affaire ressource. Mhm. kii di anam mooy sunu njaatige. Mhm. bu demee jël ay matukaay ci convention yi teg ko pour que ñu aar géej si li pollution yëpp day xaar kilifa yi ñu wax ne jóg la ñooy jóg ñu sant ko liggéey la ñu indi mu door caa wax ñi nga xam ne ñooy aar biir. suñu gisee nag daañu tere nit ñi dem ca bu dee ba nga xam foofu kat dafa yàqu dafa yàqu baaxul ci ñoom ñu fa yegg loolu lépp ñu ko combiné di ut lu baax bu ñu xaar bañu yàkkamti ñu bàyyi kàddu bi ku nekk wax parce que wax bi ci war ko wax yàq wax bi mhm. ci loolu la ñuy bañ te mbir dafa nekk loo xam ne dafa sérieux parce que dañ koy wax tey ngir ëllëg parce que ëllëg dañu war a nekk jël mhm. ok tey li dafa war a liggéey dëgg la tey li ci rax tey bu doon joxuñ baaraam tuuma ñan ñooy foti fii Mm-hmm. bul tuuma. Mm-hmm. parce que dama lay wax ne la. Mm-hmm. risque na koo sori fooy amee pétrole ak gaz. dëgg la. risque mu am. li mu laaj bay feeñ la cay dugg yépp du lu neex du lu neex lu ñuy lox du lu neex loxee du lu neex far mu da koy yàq door a am. bu yàqul du am kon nag yàq ba la ko mën a yàq mën na nekk lu tar loxee mën na yàqal nit yàq lu ci biir. ak dund. loolee bu kenn joxoon ñu ko kenn ñu bàyyi kàddu gi génn ci abi scientifique yi. parce ñu ñu ne dañoo nekk ci ministère technique boo xamee ne ñiy jàng màccee ci xam-xam yi ñi leen ci daara yi nga xam ne ñu ngay gëstu di seet ñoo bokk lu ñuy gisandoo waaye dafa am ku nekk la la war ak fa nga koy waxee ku te war a wax ak ku jar nga taxaw di ci wax. Mm-hmm. loolu lépp dañ koy jox pàcc bu nekk wàllam. dëgg la mais sànq yaa ngi doon invoqué ay charte ak i convention mais convention maritime yi ngay dégg. Mm-hmm. dama ne la convention environnementale ak la convention maritime. dañoo daje fekk ji aussi suñu code de l'environnement yi boo gisee ñu naan convention yi nañu ko introduire biir code yi loolu la tax mhm. parce que tey ji am na convention xëy mooy aar am na convention xëy ni mooy yiir am na convention xëy mooy tëral mhm. ñooñu yëpp am waaye duñu suñuy convention ci wàllu géej offshore ñu ko nankal ne waa ANAM ñooñu ko yoroo moo tax bu ngeen wax ay bateau jëm si yooyu ñoom fa la ñi di pollution foofu la ñuy wéru ji li di aar géej gi nag asmar ba ci kaw DPS surveillance waa DPS fekk ngi si taxaw aussi bu baax hmm. suñu air marine protégé Dakar Gorée bi suñu commandant surveillant hmm. moo tax ma ne yéen a ngi wax gànjool jëbel gànjool waaye lan indi nag lu feeñ ci sud mu nekk loo xam ne nord ak sud ñoo bokk lu ñu fay seet ñoo bokk ngaañ yi feeñ ci ñoom est-ce que mbir mi la leneen lu nekk ci ginnaaw loolee nga xam ne xel dama ci. Mhm. tey ndax am ngeen justement yaa ngi yaa ngi wax nord bi wax sud ndax am ngeen estimation dégâts yi. xam nga nag fu mu nekk nii luy taawee kuy dem naax buy dem mën na koo aar ci ñaata nga koy xamee. Mhm. am leel dalul su nekk nii bu ñu demee ba gis bu nekk lu kumba dem bay xaw a wàcceeku dem bay wàññeeku dem bay rétrécir bay teer ngay xam ne. fii la ëppee fii la gën tare fii la ëpp la ba waaye yamamaay yi ngay tàmbali dem ci kaw ba mu nekk ba mu yàqoo woon dafa bari woon mu ngi yàqu ndànk di teer woon mu ngay jeex dañuy bàyyi ba abib science bi comme ñu wax jeex ñu nattee ko noonu xam ñaata la. ndax phénomène bi dañuy faral di ko gis euh, ci suñuy euh, waax. bari na fi moo tax ma ne géeju njànd ndox mu yàqu. moo da koo xam waaye bu doxee gaz ak gasoil ak yeneen yoo xam ne essence la ak yu ñu sànni ci ak yoo xam ne ay euh, ay toxique yoo xam ne poison yoo xam ne dafay dugg si géej gi yooyu yëpp da dajale yoo gis nañ ko yooyu yëpp gis nañ ko si géej gi day teer que bettuñu. mu mhm. ma nekk nii dañ daan gis tanker bu génnee dem rek ubbi baanam di dem di raxas citernam di dem. yooyu mhm. amoon na fi moo tax ma ne nañu bàyyi abi santu ñu nattee ko ñi nga xam ne ñu yor nattukaay matukaay ñu wax ko. Mhm. parce que nattukaay yaa ngi ci ñoom kañ manqué wu fi xam-xam baa ngi fi mais yéen bàyyi ñu jël ko. monsieur Thioune ñu waxtaanee actualité muy rapport OFNAC bi ñëw dëggal la nga xam ne nappkat yi yàgg nañ koo joytu ci mim réew muy licence yi ak euh, joxe gi ñu koy joxe. waaw mais nañ ci dolli dañu génne licence yi xam ku am ak ku amul ak fu ñu ko joxe maanaam parce que man mii lay wax yoon nii deux mille en tout cas li wetu mooy boobu ñu waxoon réunion boobu man man bokk naa ci ñu waroon toog si réunion fekk ma ko. 2014 nag ba 2019 toog ma ci benn commission mbir mi nag ñaar la. ci hmm. mu yemool témboo lañ ko tudd la ñuy laaj nañ ko ko laaj. nombre de licence yi ci biir registre bi ñu ko waxee fekk gaal ga la ca géej ga ëpp na la ci kaw bureau ba nañ ko wax waaye loolu lépp nag duñu ko àttee àttab tali ak rumeur ak clameur xam nga duñ koy àttee. Hmm. dañ koy àttee bàyyi mu dem ca yoon yoon ko wax nga xam kon mooy lan ak ku def lan ñu wax ca loolee. kon yow bu ma la déggee mooy ñu saytu ministre nga fi nekkoon ci jamono jooju nga xam ne ah, moom la ñu euh, natt oui oui ça en 2014 2019 yaa ma ministre mhm. naka dañ la rapport. d'accord daal ñu saytu ñu xool. c'est tout. tey euh, lan lañ mën a jàpp ci napp gi ci mim réew nu mu nu mu tëre daal. benn situation jën dinañ ko yeesal waaye kenn mën wax luy jeex parce nag du yees kenn du ko yeesal waaye dafa wax ne li nga bëgg mu fekk tey fekk nag am na loo ciy taxawee mhm. te nekk nag war ngaa mën a la jox mu jëriñ tey jëriñ ëllëg mhm. su ñu ko jàmm ñooy mais tey ndax am na évolution parce que ñoo ngi doon ne suñu géej gi amatul dara léegi lu ñu mën a jàpp du géej gi rek du yéen rek du suñu géej gi moo sonn géej gi su ñu ko teg nañ ko wax entre lu ko réglementation yi nañ ko def appliqué ko ku jóg napp ku mu neex nga napp waaye jóg di napp lu waral ba àttanu ko dañ ko dañ ko sëf lu ko lu gën a diis maanaam pêche étrangère bi non bàyyil pêche étrangère dama ne mun leen am vingt six mille que doo leen ko réglementer ku mu neex nga napp saa yu neex nga napp ku jóg nappi fu waay neex mu napp. d'accord kon daal euh, lu neex waay def gi moo waral ne euh, moo waxal euh, situation réglementation soxna si. Hmm? code bu amul accident yi bari. mais tey waxoon nañ ne dina amal ay assises ci ci ci ci ci napp gi ba tey yéen ñi acteurs yi ndax yéen a ngi ciy dégg écho. waaw li ñu xamoon ci assise mooy lu ñu jël liggéey ko di ko fa yóbbu pour waxi ci ko. waaye loo xam ne kaay leen ku nekk wax lu neex mënul tegu si yoon na nit ñi wax ne amoon nañu ay assises si 2001 lañ ci doon def dara meññ ci dara jagosé que la ñuy defoon ak li ñu waxagul que li ñu waxoon bu pare nañ ko déyegal doon wax yeneen wax yu bees wax ñu ne ku war a wax waxte waroo wax yàq nga wax ci yéen acteurs yi ciy woo donc yéen a war a wax moo taxit yéen lañ ciy woo pour ngeen amal ay wax dafa war a néew ci presse di war a am ci presse mooy ñu indi ay rapport audit yi ñu wax nañ ko génne bu ñu audité yi génne évaluer li ñu jot a def 2001 ba léegi nga xam bu nekk lan nga def am mu def on a dama ne dañu faussé lettre politique sectorielle bi laa la wax c'est la lettre politique la ñu faussé. Euh, mu mel ni euh, dañ ko jox ñu ko àttanul. loolu nga nga bëgg a wax waxee loolu. Hmm. ay techniciens fi nekk mais techniciens amatuñu baat politiciens yi yàq suñu ministère. mooy joxuñu ko ñi ñiñ ko war a jox non xam nga tey jii Sénégal nga dëkk ma dëkk Sénégal. Mm-hmm. waaw boo jëlee ki war a war fas bi donc mu war maam jël mécanicien bi di ko tabaxloo jël maçon bi di koy buggee jël indi problème bi. Hmm. nañ nit ñi rek la quoi. le message moomu leen ko ñoom ñoom ñoo ko moom xam nañ ni ciy tontu. mais man dama bëgg suñu auditeurs yi gën a comprendre monsieur Thioune. ñoom ñu comprendre daañu xam. <laughs> ñoom code la certainement mais suñu auditeurs yi ñoom mënuñoo xam parce que fu mu nekk nii ay kàllaamay coach nga ñuy jox ay code nga ñuy jox fu nekk nii bëggoon naa un peu plus d' explication ndax dañoo jël ay nit teg leen fi ñu leen warul teg. Hmm. ay ministère technique lañ yor ministère technique ay technicien lañu. technicien nag bu jiitee làmb dana yegg fa technique mhm. yegg mais bu jëlee gumba nag jiitul ci yoon yi que du déglu technicien du yegg mhm. gumba teerwul a yegg parce que technicien waxee da diggal mhm. ministère de la paix c'est un ministère où il y a que des techniciens suñu leen sàgganee anam ngeen doon xam li ngeen am lan la instance su Afrique bi amul booy dem ko doon fekk Sénégal yoo xam ne lañ bàyyi Sénégal dem du tax. mais yéen tey syndicat yi euh, ban taxawaay ngeen def euh, plus plaidoyer pour ay organisation pour organisation secteur bi waaw. bi ñu ne métier la dem naa ba OIT. Mhm. pencum liggéeyukat yi. indi mhm. fi le comité national de dialogue social pêche aquaculture ressources offshore. Mhm. Sénégal am approche boo xam ne comité tripartite sénégalais bi état du Sénégal employeur ak travailleur. ñun ñoo ko fi am en Afrique de l'Ouest di ko wane fi ñu toll ba mu samp ba léegi ministère bi ma sugul joxuñu bic waxuma laa bureau classement des marais waxuma la assisté ñu ci dara loo xam ne boole yëguñu sax faale wuñu waaye ñun ñoo faale suñu bopp am suñu làmmiñ mm-hmm. di wax nag moo jaadu ko di ko ragaluñ ci dara. d'accord comité dialogue social bi am na dama nga laaj ko madame Innocence tam ci apport yi ñuy def mais ministère yi moom gëmul ne am na te ñoom ci lañ bokk ma toogal état bi tànn bee googu ne lañ nekkul mu man may xaar foofu doo gis. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Mamadou Diop Thioune euh, nga bokk ci euh, au conseil euh, des collectivités territoriales merci beaucoup. merci beaucoup. merci beaucoup. merci beaucoup.